Bienvenue sur Salam Vision. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu jullee ci yàlla sunu borom bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sama ñaari waajur ñu yàgg fi lool te ànd ak wér-gu-yaram di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér-gu-yaram ak xalifa Serigne saali Mbacke Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Salim Mbacke ak xalifa Baye Fale ak njabootu maam borom Touba gépp ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan suñ kàddu di nga koy dégg suñ kàddu yegg sa ci yow ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu di ñaanal ñëpp jàmm incha allah bi soobee yàlla. jërëjëf maaleykum ko defee rek ñu bàyyi la rek xanaa ngay yàlla ak waa kër xam nga man ñi ma ñëpp xam na ne ma ci sant Serigne Saliou laay dox ay cant ñaanal nit ñi ci lool laay xëy di ci gont euh, gulet ma wax ci làmb démb lay doog a am ci buntu kër Balla Euh, gulet tamit maa wax ci football coupe d'Afrique bi jàll lay doog am ak coupe du monde am na sax ñu bari ne waruñu cee wax ndax ñun sëñ Saliou moo ñuy liggéeyloo waaye nag koo ne na ma koy def nam la def moo tax la mu dimm ji li tax ma wax ci mooy mënuma nekk buntu kër Balla ñu nekk ci lu ñu nekk di ci def di ko jàppale ngir suñu borom may ko ndam duñ ca def lu dul taxaw ca buntu këram naan dañ koy daan day am defet du respect du ay teggin te bu du woon ñoom wala jëmi bala wala dara dafa am ñu bokk ci moom te jege ko lool te ñooñu du jóg ci man guddi ak bëccëg seen teraanga du jóg ci man lu ma woote ñoo cee njëkk ñoo cee mujj lu ma xew ñooy def chaque jour ñu jël seen alal di ma ko jox ngir jëmi sëñ Saalim kon ñooñu buñ amee bis am mbir bu dul woon bala du Sa du kenn man war naa caa war a mën a ñoo def cam la ma mën ak la ma mënul jàppale leen ngir seen borom may leen ndam ndax ndam dong lañ ca doon ñaan yàlla moo dogale nii te ñun ñii xam noon na ne Balla moo yoroon ndam li ba ni ñuy jógee ca këram muy dem ca làmb ja loolu ñëpp gisoon nañ ko ñu nekk buntu këram moo tax li daan Balla Gaye sëriñ su bari maa ngi gis ñu génn di wax kenn jàpp ko ci gàllaaj du gàllaaj du mystique du dara lu daane Balla Balla lenn rek moo ko daan moo indi woon ndam li moo indaale lépp jàkkaarloo bi nga xam ne jàkkaarloo naa euh, Boy Niang bi ko Boy ñaa di wër Boy Niang wër bi ñoru ko woon mais Balla bi mu laalee dernier garab wartu woon a génn biir làmb ji bi mu dawee génn làmb ji Balla ci la génnee waale ndamam ñëw jox ko boo Niang mais jilli bi Balla moo ko moomoon jilli bi Balla moo waroon a daan booba la Balla ñàkk combat bi man fi ma toog di ko seetaan sama téléphone laa ne Balla dañ koy daan parce que sarxee na ndam li jéem naa woote sax mais ñi ma doon woo jotuma leen parce que booba loolu jàll na te ñun booba demuñu stade waaw li ñu man mooy ne ci kër ga def ñaan def sarax def nañu ko ngir jëmmi yàlla ak yenente beeg sëriñ Saliou ndax bëgg na sëñ Saliou tuddee ko doom bu dul dara ñu jàpp ko ngir jëmmi sëñ Saliou te am murit la waaw te ay wóolare moo ñu bari ni ma koy waxee samay xarit lan duñ jóg ci man guddi ak bëccëg kon ñoon amuñu lu dul ñaanal ko suñu borom may ko ndam mais lii rek mooy li daan Balla du gàllaaj du mystique sëriñ bu la ko waxul dëgg du doolee du dara lii la Balla moo génn laamu ji dem joxe ndamam loolu nag li koy waral mooy booy ñaar mbë euh, maanaam mbër mu mag mën na koo dee wala baayam comme que mbër la ñu dee ko xamal ko lu bari loo xam ne loolu rek lañ ko wax moo tax wër bi mu doon wër ñuru ko mais na Balla génn euh, maanaam saaku yi loolu rek la ci doon saaku waaw am na ko waaw. macha allah jërëjëf sëñ Lo Alioune Sine Saliou ci leeral bu am solo tamit est-ce bu ñu xoolee tamit Balla bu ñu xoolee nii bu wàllu sëriñ jeexee. ci cadre doole ci cadre bëri ak ci cadre tam Boy Niang gën ko doon ndaw est que tam loolu feeñu dem ci ko ndax moom boo xoolee Boy ko xam nga erreur bu amul jëll du am. mooy mooy li ma leen wax loolu moo indi jëll bi mais Balla def li mu war a def. entraîné na ànd na ak ay bokkam fu ñu xam dugg fa ñi ko jege ñëpp jàppale nañ ko parce que képp ko na moom wala nga ñëw géejawaay dem avant muy génn nit ñi dañ doon jooyoo lu ne. te ndam lu ne nag Balla andil na ko waa géejawaay kon munuñu lu dul sant ko moom gërëm ko ak waa géejawaay gépp munuñu lenn lu dul moom tàkkusaan ju ne am na ko fi ndam lu ne indi na ko fi gàllaaj bu taxoon doon bañ a daanu Yékini kenn du ko daaneel ci làmb ji amul ku ko ci ëpp mystique ak yeneen ak yeneen mais defet day am te suñu boroomay dogale noonu surtout nag liy daan mbër dafa yomb maanaam du ci gàllaaj du ci dara léeg-léeg lu ndaw walay tegtal wala sarax yu néew mooy daaneel mbër du yu ni gis wala bitéel yeeg yu baree bari làmb dafa sew loolu mooy problème bi mais en parlant Boy Niang da daan ci doole déedéet Boy Niang ëppul doole Balla Balla am na doole entraîné na forme la indi confiance la indi bi mu sumi ko ku ne xam na ne Balla mii liggéey na def na li ko war ànd ko ak ay bokkam lii ma la wax rek mooy li tax Balla ñàkk combat bi te amul benn sëriñ bu génn naan maa détourné làmb ji waxul dëgg ñaareel ba ko taxaw naan maa daan Balla Gaye waxoo dëgg Balla lenn la mu sarxe ndamam joxe ndamam ci Boy Niang mooy bi nu tëjee ba mu def dernier biteel bi nu ko jox mu raxasu ci loxo yi def nii nangam Balla wartu woon a génnaat làmb ji bi mu génnee làmb ji la joxe ndam li boobu la Boy Niang téye ndam li ndax maam waxoon naa ci vidéo yàgg na ba combat doog tàmbali ma ne leen bu buñ bëree ci weer yi Boy Niang mooy daan moo yor ndam li Boy Niang yor na li ay yoon yoon ñu koy nangu di ko jox Balla di ko nangu di ko jox Balla ba ci combat bi Balla moo moomee woon lépp waxoon naa ko mooy indi mbooloo li ëpp ci combat bi moo koy def mais ku gis ak bëre bi ak ni mu demee ak Balla xam ne lii du lii du bëre Balla parce que maninam comme ni ñu ko daane noonu la daane woon Yaxe Joob ni te moo moomoon ndam li mais nag bi mu dawee génn ci la ñàkk ndam li jox ko Boy ñax loolu la woon ak nu mu mënoon di demee rek boo ñaada koy daan ndax man teel naa koo wax ci fi ma nekkoon wax dëgg fa yàlla noonu rek la demee. Euh, naka nga dundee ñu gis la démb nga yendu biir kër Balla Gaye yendoon ndox moom. génn yi nga ne yaa ngi ko fay def na foofu xale bi nga loolu ak moo ko lu dul sant yàlla man ku may jàpp doo ma jàpp ngir football wala làmb man ku may jàpp da nga may jàpp ngir jëmi yàlla ak yenente beeg Serigne Saliou amul benn maqam wala daraja bu muy wàññi ci ñun wala ñaan lu ñaan li ni man ñu ngi koy man ñu ngi ciy jëflanteel ñu ngi ciy sant yàlla amul benn vidéo bu ma nit ma sa génneel na maa wax ci làmb musuma ci wax du ma wax ci làmb football waxi nopp musuma ci wax mais li ëpp solo ci sëriñ mooy yow ñi jëflante yow xam na nañ yow yaay kan ñaanal mbër bokkut ak ñaanal benn simple doomu aadama boo xam ne du mbër du dara ci yàlla leen ni ñaan nag suñu borom mooy aji kiy dogal sëriñ du wëliw du yenent du xut bu samaan nit njaay la li ma xam nag yàlla moo ko xamal ñun lu ñu am ci ñaan lañ ko teddee ak ñaanu Serigne Saliou kon loolu amul loo xam ne day wàññul dara ci samay taalibe wala kenn buntu kër Balla laa ne di def yi may def xam naa ne Balla mooy daan parce que moom lañ jox ndam li te ñun ñi ci ñaan nag ak ñeneen ñi ci ñaan Balla fu ne dem na fa Serigne si fi ñaan ñëpp ak ñim àndal amul kenn ko xam ne coomo nga ci ku nekk man nga la ngay man mais yàllaa dogal ndam noon lay demee lu ndaw moo la koy ñàkkloo te li ko ñàkkloo démb mooy loolu loolu nag li tax Balla ñàkk mooy ñàkk maanaam mbër mu mag moo xam ne jege na la wax ak yow parce que ñi ko jege woon bu ñu xalaatoon loolu Balla mu def dernier kéem du génn saako yi mais loolu expérience boobu loolooy problème bi boo Niang am na boo leen dee gis image bi am na paa bu ci nekk sol lu weex di ko wax nii naa ba Balla loolu la manqué loolu dong moo manqué ci combat bi démb mais du sëriñ du entraînement du doole moo ko bokkam def nañ li ñu war a def lépp ndax ku ñëw ca combat ba ngir Balla boo soñoon Balla daan ku fa ñëw àndoon Balla boo soñoon mu am ndam du kenn loolu la ndax xam nañ ci lu bari avant combat bi. xam nañ ci lu baree baree baree bari ñoo am dañuy jàppale boo Niang wala ay mbër ñuy sot Balla ñu koy sot fu ne xam nañ lépp ñun dañuy sant yàlla ba Balla fekkee combat bi man ko tal ko di ko bëri loolu la ñuy sant yàlla mu am ci defet loolu moo neex yàlla waaw du lenn lu dul day jógaat waajaat yeneen yi ci kanamam parce que nag sa ndam boo ko jëlee sarxe ko loolu moom mooy dansé parce que daa jël ndamam joxe ko moo waral ñaareel nga gis mbër ñu daan ko ba pare balaa daanaan mbër mu yàgg mais moo jël ndamam dem joxe ko wu Balla woon a génne làmb ji di duggaat booba la joxe ndamam ndax bi sëriñam yëpp génnee sëriñam bi génn dem moom mu des fa moom Balla warut woon a génnaat li mu waroon def mooy heure buy génnaat daan booy ñaa génnaale ndam li dem yët ko sëriñam mais génn gim gaaw sëriñ bi génn ñu dem ba ca kanam bi daal soolu mu génn saa koy dem ñëwaat looloo daan Balla loolo waxul lu dul loolu wallahi alhamdulilah waxul dëgg. du sëriñ du kenn ku ko tourné Boy Niang amul benn yoon bu muy jàpp Balla Gaye ci gàllaaj ci combat bi amul dooyu sëriñam du dara laa la wax amul man maa la ko wax waaw. ce que tey jii jotul fi mu ne Balla Gaye samp Salim te ànd Salim doon mag ndax gannaaw moom staff ba fi ne amatul mag moo xam ne moo leen dirigé ndax Balla Gaye numéro un dem na euh, bàyyam du ba lees waxi nopp ko mag ña ñu naan écurie Walo ba ci écurie Balla dem nañ ay ndaw rek a fi des est-ce que xam nga Balla dafa may bokk am ñu ko yor am ñoo xam ne ñu ñoo yor léppam bis bu waree tekki ngémbam ñi mu ci war a wax dana toog waxtaan ceeg ñoom xam nga loolu ñun du suñ kàddu wala suñ rôle mais li ci xam ne rek moo ci sama xalaat en tant que ma di ko wax Yékini bi muy bëree di daan di daan yëpp dañ ne mag la Balla mi ngi ci làmb ja ba tey sansam mi ngi ci day bëre parce que mooy métier lu mu am ci loo ko amee nit na kenn du ko fekk ci métier am ko bàyyi ko bis bu demee ba ci yaramam ne war na bàyyi làmb kenn du taxaw di ko wax moom moo koy leer ne lii mënuta ne dafay bàyyi Salif xale la dañ koy ñaanal ba ci combat bii mu jëm moo Reug Reug suñu borom may ko ñu waaj combat boobu ak waa Géejawaay gépp te xam ne ñaari defet dañ koy bañ géejuwaay gépp jàpp ñaanti combat boobu ñu jàppale ñooñu parce que géejuwaay gépp amuñu lu dul mbër ya fa nekk dong la am te sport la foo agré géejuwaay ak Pikine yëpp presque benn la loolu la rek mais du Balla dafa jeexal wala war naa tekki ngemmam déedéet heure bu waree tekki ngemmam la taxoon mu dugg ci làmb ba gisatu ci boppam su boobaa dana toog waxtaan ceeg ñi mu war a waxtaan mais Balla daa war a bàyyi làmb waaw màgget na déedéet barki démb ci lu mu jógee victoire ci lu mu jógewaat victoire mi ngi doog a am défaite mais looloo neex yàlla ku bëre mooy daanu waaw. na solo lool ci mujj waaw kooku dafa def li ko war rek. maanaam bàyyi ji seex la daa jël Balla def ko ne doomam jël Aziz boole ko ci famille bi euh, Balla yàgg na leen ko wax ci ay kàddoom yu baree bari ñu seen diggante ak ñoom benn la kenn mënu ci wax dara ki yor alalam yor moyenam yor léppam di la jàppale ci côté bu ne dañoo bëgg Balla muy bu Balla daanee ak bu daanoo bu nekkee ci naqar ak bu nekkee ci bànneex ñooñu Balla amul seen fay ñooñu amul lenn lu ñu war a def lu dul sant leen gërëm leen ak ñi dëkk Géejawaay ñëpp koo gis ànd ak Balla rek xaritam la xam na la muy def du question bàll kii day ànd ak moom bëgg mu daanu kii moo ko jaay déedéet nit ñi nan bàyyi loolu bu nu yàq diggante balla ñi ko war ñëpp ak mu nekk moom magum jëmm la xam na lu bari ñi ñëpp boo sañoon maanaam bu nu sañoon bàll day daan Aziz Ndiaye papaam bu ñëwee loolu lu rëy la Aziz def na ay moyenam amul lu bàll di dugg te du ci dugg loolu dégg ngeen ko ci ay kàddoom yu bari loolu moom du information du jar ma ci wax du jar dara parce que balla xam na ay nitam te xam na ñi ko yéene lu baax ak ñi ko yéene leneen li ay nitam nan ko bàyyi moom ñu ànd ñoom lii am yàllaa koy dogal te ñaan yàlla beneen combat bi mu jëm bala am ci ndam waaw siggiwaat ñu continuer waat nekkaat leneen waaw loolu la rek mais du leneen waaw. ce que loo euh, waaw man nag li ma ci mën a wax nag mooy damaa muumut sama bopp kilifa yi bare nag dan maa ñaan ci àdduna fa ne ñu wooy ma sëriñ bi ma yaakaar woo ma. ñëpp woo ma kilifa yu mag woo ma ci Touba ak ñenn ñoo xam ne fi may bokk di ko tiitaroo dan maa woo ñaan ma te loolee ñun ma ñaan dama leen koy may ndax man murit laa te du ma woy lu dul ndigal maanaam ba dund di tukki nit du ma gisata ma wax ci làmbu diw mooy daal parce que c'est la première fois ma wax ko te loolu ñu wax dëgg la dañoo am ay taalibe am ñu ñu yaakaar duñ mun porte particulier ci réew mi bokk ñoo yeneen sëriñ si am ne dañu génn wax kaama ñaanal leen wax ci làmmu lu ne ña ngi cay wax amul image bu ma nit di gis may wax ci làmb du am lu dul lii te lii tamit fa ma nekkoon force loolu laa mën a wax te tamit ba may wax loolu xam naa ne ñoo yor ndam li waaw mais ñàkk nañ ko loolu la yàlla dogal parce que man combat bi ci yoon la ma fekk man bi mu paree foofu ba jóge fa ci yoon la ma fekk sama téléphone laa seetaane combat bi bi mu génnee tamit ñi ma war a woo laa woo wax leen loolu du leneen demuñ ca làmb ji war a dara kon def na li ñu war a def ñu bokk fa ay nitam ak ñi leen jege di suñu nawle di suñu xarit di daj ci ñun lu ne ak di yëkkati seen alal di ñu ko jox yoon la bu nekkee ci dara ñu soutenir leen wax ci lu baax bun taxee bunt këram loolu la ngir ñaax leen jox leen confiance waaye nag am anka lu jëm ci ay wàllu làmb ba adduna di tukki sëriñ soosu ak ñi ma ci woo ñaan ma nan dalal seen xel dituñu ko gis ci man wala ma ciy wax am nañ droit nag ñi ñu ciy jëflanteel leen jëflanteel ñaanal leen ñii ñu ci xam te gëm leen ñaanal leen ñi nga xam ne nag suñu niti bopp la ak ñoom ñu deme ñoom li ñu war a def danañ ko def ñun te yàlla rek tax mais en tant que ma génne naan nii naa déedéet parce que su ma ko doon def damay def comme nii damay woo journaliste toog na leen balla day daan nangam mais doxewu ma noonu waaw parce que journaliste yi ma jël buntu kër gi leen ma jëlee parce que salaa normal ñu bare ko sàkku ci man ma taxaw ma def ko loolu la rek du leneen xëy na tur moo garaaw rek ak boo nee loo alali sëñ Saliou tur bi yegg fa jëm ji yeggul euh, loolu rek moo indi burwe beeg yooyu mais du ma faral di wax ci làmb of the young people. waaw cadre boobu li ma ci mën a tontu mooy comme baat bi ma waxoon léegi xam nga làmb ji démb du question dañoo jaay Balla Gaye kenn jàpp ko ci gàllaaj wallaahi lazim sëriñ bi la wax loolu waxul dëgg Balla amul fu ñu koy téye ci gàllaaj Balla moo yor ndam li ba ci biir làmbu ji nee naa la génn bi mu génn ànd ak booy booy ñaa wër yi mu ko doon wër ñuru ko indrésé ko na Balla génn saako yi génn gi mu doon génn ak bi mu defee yëpp ba pare génnam boobu bi mu duggaatee la Balla ñàkk ndam mais Balla amul kenn ku ne ci moom di jóg ngir mu daanu wala mu torox wala parce que ku nekk da nga def ak say moyens loolu dafa am ñu yor loolu te loolu bari ñu yegg si ci mbër mi di ko dénk loolu ñooñu dañ koy teg leer Balla moomul boppam du kenn nit am na ñu yor ay mbiram bu ñu jëlee lii ba dénk am na lu tax ñu dénk la ko suñ ci gisee ne yow la dénk tegoo ko ci yoon wala ñaaw na njort ci yow loolu ñoom ñoo koy réglé seen biir mais man awma sañ-sañu tudd diw mii moo def lii wala Balla ñi ànd ak moom ñoo yàq combat bi ñëpp bëggoon mu am ndam gisuma kenn ko ci yàq combat bi man boog gisuma ko te xaw ma ko te lu may wax lu nekk nag damay leer parce que ñii ànd ak ñoom ñëpp bu buñ soñoon bala am ndam parce que mënoo nekk ci kër gi nangam ak nangam loolu na ko nit ñi bàyyi maanaam li lay yàq sab xarit wala déedéet lii daan mbër yomb na lii jàpp mbër ba maanaam du man dara c'est la yomb na ñun ñii di sëriñ si da di liggéey dañ koy xam te yàlla nag dalay boole léeg-léeg nga bokk sëriñ soo xam ne am na loo xam ne dari àdduna du la ko jaral waaye luy xam-xam bu luy xam bu bon luy xam-xam bu weex ak lu mu mën di doon suñu borom dénk nañu ko ban xam ko am na yoo xam ne nag dañ ko du def ngir diggante suñu borom ak la ñuy xalaat ëllëg ak bu ne dañoo bëgg sëñ Saliou am na loo xam ne daray àdduna jëralu ma ko man ci xam bu bon wala bu ñuul waaye lu mu mën di doon manees na ko comme ñëpp bala fu la dem ànd ki bokkam ñaata weer muy waaj combat bi génnee ay moyenam tukki ci entraîné ci ah daj ci lu ne bu sañoon day am ndam ñi moom ñëpp tamit loolu dong laa mën a yaakaar mais mënu ma yaakaar ne euh, nit moo ko jaay wala déedéet boo ñaa jàppul Balla Gaye ci ci ci gàllaaj te Boy Niang yàgg naa jóg ci làmb ji di def ay gàllaaj ak yu ne yu ne ñun xam nañ ci yu bëree bari yoo xam ne internet la duñ ci war jar di leeral mais mën na leen ci wax lu ne yàlla xam na loolu sarax bu mu ci génne wala lu mu ci def mën nañoo toog wax ko te nit du ko dindi mais amul njariñ amul sens lii la yàlla dogal comme li ma wax rek. Hmm. léegi bu la la ko askan ak waa message bi ma wax mooy di ñaanal ñëpp jàmm euh, di ñaan ci réew mi ñu nekk jàmm message yi ñaar lay doon dana am boo xam ne dana ma ñor lool benn bi day jëm ci wàllu sëriñ si sëriñ si nga xam ne suñ borom dogal na ñu ngi ci internet bi wala di ci génn lu fees lu bari euh, nan gën a wekk seen bopp te xam ne sëriñ méccam noobul la. métier personnalité la président sax yaa ko gën a fort parce que boo amoon yitte am soxla yow lay day wuti ñëw ñoom yow la ñuy wër kon xamal li nga yor mooy lan te am ci fulla am ci fayda am ci personnalité xam ne sëriñ du ay caaxaan sëriñ day complété waaye eh, du maanaam deux cent mille yu ma nar a jël man fayu ko sit wala ngir mu wane ma li toujours ma togg ko ñam jox ko taalibi sëñ Saaliw ñu lekk ko moom ma koy gënal ku ci man la ngay def donte bëgg daa bëgg nit ñi xam la boo defee benn vidéo àdduna bépp xam la demal toog di faj aajo parce que koo ñaanal mu gis ba léegi dana ñëw buy ñëw dana sawar a indi keneen jërul kenn naan kaa ma ñaanal la fu la fekk yaa ci internet bi di wax ba ñu bari léegi dañoo jàpp métium sëriñ ay euh, comme ay comédien yooyu te du loolu métium sëriñ noobul la ibi tamit sëriñ si wax ci làmbu naan waaw nanga mën naa am wala gisuma ci kii déedéet booy wax day wax lu leer ne diw day daan wala diw day daanu bu diw daanoo xam ne yaa waxul dëgg fen nga bu daanoo nga xam ne nangam bu dee yow da ngay wax rek pour sa xalaat parce que ñu bari dañ ko wax pour promotion rek xalaat sëriñ su bari diw mooy daan tomante mu daan mu génn waxoon naa ko diw du daan tomante daanu mu génn waxoon naa ko mais ñun dañu taxaw ne Balla day am ndam mais ñun boo cay wax nag na fekk nga di ca ñaan def la ngay def xam la ngay def bu dul loolu bul wax seet parce que football làmm ku ci doxee ci seet chaque jour nga daanu parce que mën nga seet ba gis ndam ñu dem ba dara minute ndam ñu ko ñu dëpp ndam loolu mooy am ci làmm mooy am ci bàyyi xel loolu te gën a lu benn sëriñ métier nag jàpp nañ ne sëriñ sépp aay ñun ñoo ci gën a tuut xamuñu dara parce que man li may wax toujours moo tax vidéo bu benn vidéo bu ma nit di gis may wane xam-xam wala may wane ngir def kaay ma ñaan la déedéet dañuy am geneen jot gudul googu te budul yi kenn du ma gis ci yu bëree bëri beneen mooy na ñaan ci réew mi jàmm di leen sant di leen gërëm yéen journaliste yi fi teew yëpp euh, amuñu seen fay surtout waa Salam Vision am ne ci man lan bokk ak suñ seenu youtube nga xam ne loo alali sëñ saaliw ak tiktok bi loo alali sëñ saaliw ak facebook bi loo alali sëñ saaliw may jéggul nag sama taalibe yeeg soppe yeeg wóllëre yeeg am di jàmm yeeg xarit yi lépp lu leen metti ci suñ jëmm ñu ngi koy jéggulu te nañoo xam ne rek doomu aadama lan te lii la suñ borom dogal te ñun ñëwuñu ci àdduna lu dul liggéeyal sëñ saaliw ndax man nee naa jàpp naa ne ba may sàkk sëñ saaliw rek moo tax kon man sama dund sama lépp sëñ saaliw laa amu ko sëñ ku ma xam ci may xam ci laay dunde ci laay deewe ci laay dekkee moom laay nooyee góoma nag ku dul moom wax naa leen ko bataay bu yàlla taxaw ni yeneen bi taxaw suñ tubaa taxaw suñ saali taxaw ma romb leen dem suñ saali parce que moom laa xam nit nag li nga xam moom ngay mën a jàpp kon ñu ngi jéggalu ñëpp di wax ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak baal nañ ñëpp ak ñi ngi jéggal ñëpp nañu ñëpp jéggal géejawaay nañu àndaat jàppale Balla Sa Thiès ak mbër yi fa nekk yëpp wàcc seen combat bii ñu dëgmal Sa Thiès ñaanal suñu borom may ko ca ndam ci kàttanu suñu borom Balla yeneen combat yi ko def si suñu borom may ko ci ndam nan xam ne defet la nan fàtte loolu nekk ca la ne Balla moom it day fàtte nekk ca la mu a ne sant nag mboolem ko doon jàppale Balla géey moo xam sëriñam nga ku ko doon ñaanal te gis na la ak kum gisut kum xama kum xamut ku ñëw sa kër ku ko ñëw Balla sant na ñëpp surtout koñ doon dëkk yëpp ndax mbër daa yaatu bi ñaaw sant na gërëm na ñëpp xalabul kenn kenn du dégg mu wax kenn lu ñaaw ndax nit la te taalibi Sëriñ Tuubaa la kon nag ci suñ ko ñëpp gërëmal nañ ko ñëpp waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu.